yenn client yoo xam ne tey jii nanu bàyyi ci ni baal ci nu leen tuddee mooy dañ ci am jafe-jafe ak ñoom jafe-jafe bi bokk na ci daa am lu leen exiger mooy ay carte GAB ba tax yow nga jug di ci ñaxtu ak fi jamono toll est-ce que nag euh, loolu jaroon naa ñaxtu parce que modernité moo ñu yóbbu foofu parce que tamit sumbaloo ak dajaloo bi aussi tamit ñu bari tamit euh, bëggatuñ ko parce que dañ daan jooy buxante bi ci biir banque yi tey bu mm. ndem ba am carte carte bac ñu taxaw ci waxtu woo am ñu ci taxaw ne di ko exiger seen client pour man tàcc moo ci gënoon kat di ci bind communiqué di ko dingaat waa xam nga euh, carte gab dafa bokk ci li ñuy wax instrument de paiement mm-hmm. bëri na mën nga ko par cheque mm-hmm. chéquier nga am chéquier jënd ko cherul mm-hmm. wala bu dee yow carte gab nga bëgg yaay tànn carte bu la neex am na carte yu ñu wax ay carte visa ak façon carte yu jar mm-hmm. vingt trois mille yu jar soixante mille et cetera mm-hmm. donc yooyu yëpp ay instrument de paiement la mm-hmm. léegi nag dañ koy commercialiser ñoom dañ koy jaay ñu ko client bi moom mooy xool bu mu ciy tànn bu ko ci arrangé mais du banquier bi moo koy tànnal na ko bii ngay jël liñ njëkk def mooy dañu xool ñëpp ñu nekkoon ca banque ba am fa découvert découvert mooy daanaka nga am nga am sa salaire am fa prêt mënatoo am prêt ngay jël découvert weer bu nekk daanaka mu nekk bu dee salaire cent cinquante mille ñu jox cinquante mille yoo xam ne dañ la koy jox muy découvert avant sur salaire la ñu xëy benn weer ne képp koo xam ne léegi dafa am découvert dootoo ko jëlee ci ci guichet ci gise yi ca gàbb nga koy jëlee mu fekk am ñu père de famille yoo xam ne ñoom ci découvert bi la ñuy yaakaar pour dund. parce que seen salaire matul. pour arrondir pour arrondir ko matul découvert lañ koy mattalee. parce que am nañ fa prêt cent cinquante mille dagg nañ leen cinquante mille mëntuñ dund jël découvert. parce que dafa am benn voilà tudd bu ñu leen tuddee wala benn activité wala maladie wala yooyu. ñu forcé ñoom ñu forcé jël découvert léegi nag découvert boobu boo demee ba nga xam ne da nga koy def ci gàbba. da ko war a avertir trois mois avant mm-hmm. ne ko kat yow kat découvert ngay dundee mm-hmm. fii ak ñetti weer découvert yi kenn dootu ko jëlee ci agence bi mm-hmm. mais dangay ngay wuti carte GAB bu ko defee nga continuer di am sa découvert nit ki mën a préparer nit ki mën a préparer mais defuñu loolu dañoo xëy rek ne découvert fin du mois jot ni ñuy dem pour fayeeku ku ci laaj sa position découvert ñu ne la amoo fi découvert boo waxee ñu ne la découvert léegi ci GAB bi nga koy jëlee lan mooy découvert ci GAB bi nga koy jëlee mooy da ngay dem jënd ji carte GAB 23000 forcément chantage daanaka. pour mën a am découvert. ñu ne loolu yëpp garaawul parce que découvert banque bee ko moom bu ko neexee jox la ko bu ko neexee bañ la ko jox. Mm-hmm. bu ko neexee teg ay conditions mm-hmm. mais li ci gën a yéeme mooy ñu taxaw def affiche ne ku amul 400000 dootoo dugg ci agence bi. lii loolu. daanaka ku amul salaire ru 400000. Mm. wala revenu mille mm. bu nekk sa biir compte boo xam ne nga ko war a retirer dootoo defati chèque dem joxe ko. nooy def ca gab ba nga koy jëlee mooy. ñëpp ñi nga xam ne dañoo am ay daleeru deux cent mille trois cent cinquante mille ak yooyu noonu bu matul quatre cent mille daal yow force da ngay jël carte gab dem gab ba retiré ko. amatoo droit carte bi dañ koy jaay. ama amat waaw te carte bi dañ la koy jaay mais ñu la ko da koy jënd par la force. donc c'est une manière de commercialiser. c'est euh, di carte gab stratégie sans dignité. Mm-hmm. ñu ne léegi impôt bëgg ko imposer usager ne leen. Euh, carte gab bi léegi da ngeen koy jënd parce que yéen amatu leen léegi chèque yi ñoom ñu jëndoon ñoom. dañ koy ñàkk. ah nañ parce que chèque bi munoo dem gab ba dugal fa chèque. chèque ba guichet nga koy dugal. Mhm. mais comment ça fait-il que kooku jënd chèque yam nga jaay ko ko chèque yi ba jeexul nga ne ko léegi chèque bi doo ko dugg ak moom euh, ci agence ba ba ñu fay la parce que yow euh, carte gab nga war a kii parce que sa salaire motul 400000. waaw mhm. loolu ñu kaas ko. ne leen c'est pas normal mais ba tey ñu continuer di ko appliquer exiger clientèle bi ku ñu dem jëli carte gab loolu moo waral ñun ñu contre seen carte gab mais ñun contre ñu carte gab procédure bu ñu bëgg forcer nit ñi ñu jënd carte gab mhm. la ñu contre ñun mais carte gab du ñëpp ko mën a mais mais am na ñoo xam ne jànguñu. mënuñu dem ci gab ba. def si opération carte gab. si si mm-hmm. seen code mënuñu koo jàpp. voilà c'est que Famara am ne ay handicap physique lañu. Mm-hmm. seen handicap. mayu leen ñoom ñuy def mm-hmm. opération ci gab bi. non non voilà donc ñun ñëpp nga ne leen exiger leen yow. carte gab léegi man faamara xam nga euh, li Omar euh, wax sànq euh, ak li nga tontu. dafa may fàttali benn affaire boo xamante ne bii jaar naa ci damay dem Touba euh, benn màggal di déglu rajo ñu may wax naan ma oto yi paan mën ngeen woote ci numéro bi sama nga ñu newut ci numéro ba dégluwuma ko damaa sax zapp ma paan nag bëgg a déggaat publicité bi mënuma koo dégg ma woote pour. ko waxaat débat bii numéro maanaam bi ma ko soxlaa la may soog a yittee mooy li nga xam ni moo nekk ci mm. association yi nga xamante ni bi moo nga parce que sa association bi man defe naa ni fi nga jaar yëpp lii ñu wax moom lañ wax mm-hmm. te kenn adhéré wut mm-hmm. boobu ba nga ni ñaata yoon ñu ngi lay invité te ñu ñëpp kenn mm-hmm. duggut ci association bi te bokk waroon nañoo bokk ci ñi ci ah. jiitu ci association boobu bokk ci parce que dañuy am jafe-jafe ak banque yi ah, banque saa yu ñeewoo ak kii bu bees ñu mu tuddati ak règlement yu bees <laughs> comprendre yoo xamante ni bi pareen saa yi doo xam lii mooy lan lii mooy lan donc nag loolu nga xamante ni bi moom la ñuy def pareen saa yi woo la ne la faamara boo lii ndax lii nu mu demee nii nii nga wax ma ma ne ah, boo di <laughs> donc yooyu yëpp nekk loo xamante ne bi sax dama ko waroon a fay parce que ay consultation euh, gratuite la pour mën a foofu war di jàppale loolu ay mais mais mais faamara carte gab il faut que ñoom xam ni du sénégalais yëpp ko mën a utiliser. du ñëpp a mën a kii carte gab donc loolu moom. il faut que xeex boobu moom war ta nekk rek ñi nga xamante ne bii mooy banque boobu parce que affaire bi bu jàllee foofu. dana jàll ci yeneen banques yi. mais doguma la. waaw benn banque boo xam ne dafa ne. renouvellement carte gab c'est obligatoire. daanaka boo xasee ba jënd. renouvellement deux euh, deux trois ans lay duré mais bu ñu koy renouveler c'est automatique. xam nga tey boo jëndee carte ba vingt trois mille waaw renouvellement bi vingt trois mille la war a doon ah, mais déedéet ñu bind ci contrat bi ne renouvellement automatique te bu ñu koy renouveler quarante neuf mille la ah, ah? mën naa tudd de tur de man de ñan la ah aw ma aw ma ci aw ma ci lu ñu wax BHS ah banque de l'habitat banque de l'habitat du Sénégal mm-hmm. ah, mais mais ñu ne ñu ñu ne ñu ne usagers yi jënd leen carte cap ci contrat bi ñu bind si renouvellement automatique tacite tacite euh, renouvellement la. waaw amul sax signé amul sax bindaat. Mhm. tacite renouvellement la. Ah, daanaka bu date bi carte bi jeexee rek carte beneen carte bi pare na nga jël dañ la koy dagg nga bëgg dañ la koy dagg bëggoo dañ la koy dagg waaye boo yaakaaree nag 23000 lañ la koy daggaat nag yaa ngi ndax sa bopp parce que 49000 lañ la koy dagg. Hmm? Hmm? mais pourquoi mais am na yu gën a doy waar yooyu. ah bon xam nga xam nga tey boo jëlee lu mel ni SGBS. Euh, waaw hmm. ah. xam nga am na ñoo xam ne le 28 la ñuy fayeeku. am na ñoo xam ne. Euh, le cinq la ñuy fayeeku. am na ñuy fayeeku le 15. am na ñuy fayeeku le 15. Mhm. waaw ñi ñu mën a ñëpp ñu mu jox prêt dafa dafa bàyyi année bi. Mhm. am nga am nga gars yi seen prêt yi am na ñoo xam ne duré na un an ñii deux ans ñii trois ans. ñii mu yàgg leen dagg échéance bi. Mhm. même ñi doon fayeeku le le 5 mu yàgg leen ko dagg normal. même montant. mu xëy benn mois ne désormais képp ku ku ku fi sa salaire yegg siwul. le 30. waaw dama lay dagg pénalité bi Hmm? waaw ñi nga xam ne dañoo defoon prêt pour cinq ans lu ci yoonu client bi loolu loolu xanaa bu yegsee bu yegsiwul moom ba pare nee na ku bëgg nag ku tàmm fayeeku la cinq nag hmm. nga xam ne yow sa salaire du yegsi euh, le trente da ngay dañuy dañuy da ngay da ngay ñëw fay vingt mille ñu defaraat la échéance bi gis nga jaay doole yooyu. mooy man la deux laa yàgg a. fayal boppam moom day liggéey ñu koy fay. mu domicilier salaire loolu bi am na droit. fay la législation may na ko mu fay la jusqu'au si si surtout ak Covid bi te Covid bi lañ ko commencé ah. Mhm. Covid bi salaire da doon tardé ba le huit ba le dix. ñoom nag ñu bëgg a profité ci retard boobu ne léegi à partir du trente képp ku andiwul sa salaire ku sa employé. Euh, viré wul sa salaire fii dañ lay dagg. est-ce que cinq mille huit cent cinq mille huit cent pour dire le vrai montant. xam nga sur combien de. xool bu client yëpp ba ba manqué woon tëj compte yi. dinañ xool kan la ñuy dagg ak kundul mais loolu la ba tey may wax ak yow nii. Mhm. travailleur Dakar dem dëkk yi. ak ñi nekk ci privé yi ñu ngi may dégg. waaw ñi nga xam ne seen salaire le deux lay ñëw. waaw bu yegsiwul le trente. Hmm. Euh, pour échéance bi jàll. ñu dagg la ñu dagg la cinq mille huit cent. pour combien de travailleurs donc ñoom dañoo bëgg enrichir hmm. sur le dos des Sénégalais mais Famara yow yàgg na la kalaame nga ciy xeex mais dafa mel ne xeex bi da nga euh, da nga cee lot maanaam na ci mais il faut ñu bokk ci nag mais mais kan moo war a arbitrer waaw maanaam ah. tey ji man bu ma tooñee nit mm. am na koo xam ne fa lan mooy yóbbu pour mu lijjanti ma tey ji banque yi bu deen dañuy teg loolu seeni i client mais am na ku war a arbitrer ci diggante client bi ak euh, waa banque yi kookan la waaw xam nga arbitre bu faree day jafe tuddee arbitre Mm. arbitre bu far. Mm. état dafa war a arbitrer. mi ngi mel ni Bécaye Mbaye buy arbitre. <laughs> sa bàyyil ngi lay <laughs> banque centrale. <laughs> day arbitrer. Mm. waaye boo xam ne. Mm-hmm. dafa gëmm ay bëtam. Euh. ñun bu ñu yuuxoo ba sonn mënuñu koo forcer poñe ko ne ko kaay arbitré kaay mm-hmm. benn dañoo amul benn pouvoir de sanction ci banque yi. Ah faalewu banques yi dañ faalewul sax parce que banques yi dañoo jàpp ni elles sont régies par des textes communautaires. waaw mais Famara nag seen association bi kon il faut mu am doole. il faut il faut mu am doole. nit ñi rek ci mën dara pour mën a jàmmaar ah, mais mais mais ça dama lay jox benn exemple. waaw waaw projet état bi kan moo koy financé. waaw waaw mooy xaalis du banque. waaw banque la waaw ah waaw bés bu ti parce que banque moo am capacité injecter de l'argent dans la communauté xaalis bi di daw. Mm-hmm. taximaan si jot ci. bi mm-hmm. ñu ne dëkk bi neex na. ñëpp kontaan. Mm-hmm. comme moo am capacité retenir liquidité bi. taximaan bi suba ba ngoon bu romb kenn du ko ëpp nit ñi di jël ay garab yi nag nangam mag yooyu. bu ko defee gars ne dëkk bi dafa bëgguma tudd tur. Macky waaw bëgguma tudd tur. loolu la ñu wax waaw. waaw loolu gars yi wax rek nga waaw waaw. dafa mag yi lan la. déet déet déet. alors ah, déet déet déet alors la gars yi wax laa. yow Fama la egg léegi dafa siise dafa siise dafa wala dafa mbay. non dafa siise dafa ture dafa mbay. waaw ñooñu noonu. <laughs> bu leen neexee dëkk bi neex. bu leen neexee dëkk bi naqari. Mhm. bu leen neexee ñu injecté de l'argent ñu tabax fu ne. gars yi ne ah mu ngi liggéey. Mhm. bàyyi leen jàmbur mu liggéey. Mhm. bu leen neexee ñu téye liquide sàcc yëpp taxaw. waa kooku neex naa xeexal. ñooñu danañ ko songu mais askan bi ñoo askan bi ñoo war a jël ay responsabilité ah ah di bañ. d'accord problème banque nee naa leen 24 heures lañ koy réglé. d'accord 24 heures mais ma laaj la benn question rek. Mhm. Euh, da nga am compte ci banque bi depuis plus de 13 ans bientôt 14 ans nga nekk fa. Hmm. léegi nga daan def ay prêts ñu lay lebal ngay rembourser muy jeex ñu dem ba nga xamante ni euh, euh, société ba la doon viréel. leneen a lay viréel depuis plus de deux ans beneen mhm. société. Mhm. mais toujours salaire bi mi ngi constant. Mhm. nga déposer prêt ñun la ñun la jox prêt parce que virement bi fi mu daan jóge jogeetu fa man leen waaye le salaire est constant ñu ne waaw léegi ñoom am nañ droit bañal la prêt. non te salaire baa ngi ñëw tout le temps. xam nga xam nga banque. moom situation bi nag dafa am dafa am dafa am droit yëpp. yaa ma gën a lëj <laughs> sa bopp la jom na. ñu dafa am droit yëpp. benn devoir la am. Mm. Mm. benn devoir. Mm. mooy prêter. devoir la ci moom prêter. Mm-hmm. waaw leble yëpp am na ko. waaw leble mooy devoir am. client bi devoir yëpp la am. surtout koo xam ne salaire bi ñëw normal mais déglu ko. dimbali da ngaa mooy droit am. man nga yàqal sa bopp. allez ñëwal <laughs> direct nga nekk fi mu xam nga war na koo fay de. Sénégal dañoo toll foo xam ne. Mm-hmm. Ah. boppam lay parce que moom bu lay wax loolu ay garantie la ci parce que day ne bulletin bi ay hmm. donc mu daan jógee jógeetu fa foofu la ñu war a dépasser gis nga tey étudiant bi ci boppam bu demee hmm. war nañ ko mën a jox prêt mu def finance ay étudiant mm-hmm. ah. mais mais étudiant yi dañuy am prêt hmm. demal dëkk yi développé yëpp parce que dëkk banque moo koy développé encore une fois banque bu baax mooy développé dëkk mooy accompagner entreprise yi ñu créer emploi. mais il faut mu nekk yoo xam ne bi banque nationale la de ah. mais justement parce ah, que ñun suñu banques yi moomuñu ci problème xam nga banque yu installé wu fii. bëgg war a liggéeyal seen dëkk. tibb xaalis moo leen di intéressé. Ah, fay na wala fayul moo leen di Mm-hmm. mais bu ñu amee suñu banque dañuy accompagner les entreprises. Nigéria yi amuñu fi ay Nigéria waaw mais c'est man li ma jaaxal mooy sénégalais yi lu tax amuñu banque man gisuma banque bu sénégalais moom. xam nga ñun lu ñuy ñu am ci banque li loolu garaaw la ay action yu ñu am xam nga tey buñu nee banque national la. alors que yow say action 20 pour cent la. Mm-hmm. nga bëgg taxaw ne banque nationale la. mais même bu dee yaay actionnaire majoritaire mais du action. Mm-hmm. du du du banque loolu looluy problème bu Sénégal il faut que ñu góorgóorlu am ay banque nationale ah oui ah banques yi nag ñu ngi enrichir wu. waaw enrichissement boo xam ne. Mm-hmm. appauvrissement wu population bi. appauvrissement wu entreprise yi. Mm-hmm. ñaata entreprise ñooy daanu. dem nañ ba président de la république di wax ni moom day créer ay fonds. pour euh, dimbale jeunes yi. dimbale femmes yi parce que ñooñu buñ mënuñu dem banque bañ lebal leen. Mhm. jafe-jafe bangoog banque dafa war a di leble. exigence am la obligation de créer ay riches. di créer ay riches mhm. di accompagner les entreprises. Mhm. jaaykatu livre ba ca mbedd bi. banque bi da ko war a fekk foofu. defal ko benn plan business plan bu baax. accompagner ko parce que am na ci expérience dix ans. muy jaay bu yàggee mu jël ñaar ñetti booy ñu ko fiy toogal mu defal leen euh, di fay impôt lépp. mais Famara li ngay man su ma la déggee. que ni bu fekkoon ne banques yi ñi ngi def li ñu war a def ci réew mi. kon defe naa ni kon président lii muy wax sax soxlawu ko. mais création d' emploi yi muy wax noonu. waaw mais xam nga tey banques yaa ngi toroxal entreprise yi. Mm-hmm, te entreprise boo ko toroxalee da ngay jàpp ni yaa ngi toroxal ay emploi yi. ay chômeur ay chômeur des créés waaw yow boo génnee presque 400 milliards. Mm-hmm. nga ne damay créer emploi. Mm-hmm. boo créer 100 emploi 200 emploi yàqu. c'est loolu ban sens la am amut sens. parce que li ngay njëkk def mooy da ngay consolider d' abord les emplois. entreprise yi nga dëgëral leen jox leen financement yokk leen accompagnement mm-hmm. ba nga xam ne emploi yi ñu yor ñoom ah. day dëgër du mën ko li ngay wax ne lu tax mu am solo xam ne ci covid bi li fi tëj bari na ci ñoo ah. xam ne seen activité doonoon dox doxatul tey jii bu doon ni pour relancer leen dañuy fexe ba banque yi delloowaat leen lebalaat leen parce que ku yor entreprise am nga garantie déjà ñu dooleel la foofu c'est-à-dire que damay confirmer li nga wax ni loolu bu ñu ko doon def tey jii ñoo ñëpp dinañ jugaat mais tey jii ñi juutu wala boog ñu sëgg. Ah. ñoo ëpp foofu ñi sigg ci réew mi. maanaam ñoo te dëgg. mais tey tey. tey yaa ngi créé ay emploi yu bees te ña njàkkoon seen liggéey amaata gu ñu liggéey. yaa problème xam nga ñii di créer emploi ñii di yor chef d' entreprise yi. seeni i bien la ñuy jël hypothéqué ko ci banque ba. seen i kër seen i oto la ñuy jël yóbbu ko ca banque ba. hypothéqué ko. Mm-hmm. tay la ko fa daanaka. Mm-hmm. mais xam nga lu ñu xamul. Mm-hmm. banque bee leen gën a soxla kër gi. banque bi. Ah. xaalis bañ koy fay. waaw soxlaw ko. Hmm. kër ga ca boppam la soxla. kër ga la ah. parce que da ko bëgg jël dugal ko ci patrimoine am. banque bi laa bëgg nga na sax. di enrichir tout le temps. naa naa ñeme ba yeggale bàyyi ko ma ñeme yi. waaw wax ni ñoom. Hmm. boo xoolee liggéeykatu banque yi. 90 hmm. pour cent yi seen kër yi. moomuñu ko ci saisie yi. moomuñu ko saisie yi jëndee. am na ñu yor kër xalaat fa la ñuy jëndee parce que fa la gën a yombee mais pour maanaam dañuy jëlee ci yow jox ma mm. saisie immobilière yiy def mm-hmm. chef d'entreprise yi jël seen kër yi dem tay la ko mm. Mm. bëgg a liggéey ah seen kër yooyu cent millions kër gi cent millions vingt cinq millions lañ koy jaay tribunal nañ la ah, koy jënd Sénégal dama bëgg autorité yi ñu pour def benn étude xam ñan ñooy jënd réellement kër yooyu bis bu ñu defee étude yi je pense que nañ jël léegi ay mesures mais est-ce que du ñoom ñoo koy jënd en tout cas li ma woor nga ne kër cent millions ñi bañ a tooñ. Ah, ah, mais mais mais li ciy jënd li ci ëpp. banquier yi la. waaw jeex na ma jigéen. affaire wu kër yi lan laa ko bëggoon laaj parce que parfois dangay gis koo xamante ne nii dafay leb dem tabax immeuble am léegi su fekkee ne euh, daf ko def affaire location da ngay gis euh, su commencé di fay parce que chaque fin du mois euh, banque bi daf koy dagg mais su demee ba affaire bi retard benn jour wala deux jours da ngay gis banque yi dañuy gaawantu duñu duñu jéem a def sax arrangement pour mhm. xool ba xam affaire yi nu ñu nu ñuy kiiwee mais dañuy gaawantu saisir saisir banque bi mhm. yooyu parfois difficulté yooyu il faut que tamit ngeen la reprendre parce que damaa gis koo xamante ne nii dafa am problème yooyu noonu mais boo demee tribunal kër yaa ngi fa ñu saam mm. di ko jaay di ko bazarder mhm. kër yi ku ku bëgg sa këru 40 millions. lu mm. kii bi ci location de. avance boo demee am boo demee tribunal am ko. parce que parfois da ngay gis ñoo xamante ni ñoom ñii dañoo war di taxaw si yooyu. Mm. ku ñu ku banque balaa muy rëtt balaa muy nangu euh, këru jàmbur. il faut tamit ñoom ñu taxaw ci. ñëllu yeewoon non waxuma borom kër gi yow comprendre loolu ma ne ah. borom kër gi tabax immeuble am chaque ah. fin du mois ñu koy dagg mu koy fayee par banque da ngay commencé am ay retard rek da ngay gis banque bi gaawantu bëgg a kër gi ma ne te ah, banque yi nañu bàyyi di jaay këru jàmbur moo tax ma naan ko bàyyi di jaay këru jàmbur nañu bàyyi di téye alalu njërim hmm. kër gi day génn àddina hmm. compte bancaire am ba waaw jabar soxna si day mujj dem di bindaanu banque ba banque ba tey kër gi waaye léegi xale yi ñu dàq leen ci école yi ñu doon jàngee. pendant des années nañu arrêté di téye alalu njirim di sonal pa euh, usagers yi. ku génn àddina ñu bëgg mais Famara est-ce que lii waxam ne gën sa dal xel di ci liggéey di ci liggéey parce que da leen di arrangé di ci liggéey ma ne ko est-ce que waxam ne gën sa dal xel non nañ ko yóbbu ah, banque nañ ko yóbbu banque ñu bàyyi ko rek mu tàggatoo peut-être bëggoon wax ci lu bari mais ñu bàyyi la waaw en tout cas damay lancer message sénégalais yi di leen wax ni non il faut ñu ñëw adhérer moom il faut que ñu adhérer en masse vraiment adhérer en masse ñun ñoo mën a lijjanti problème bancaire mhm. buñ ci xaar état mhm. buñ ci xaar banque centrale parce que banque centrale boo xam ne banque bi la ëpp doole mënoo am amoo sanction boo ko teg mosu mm-hmm. leen fi dégg sanction bu banque centrale jël teg ko ci banque. te kenn ñemewut wax ni banque yi nekk nekkuñ di def naka su dul noonu. Ah, donc pour vous dire amul benn sanction. Mm-hmm. ñun interpellé nañu état bi ci ay microfinance clandestine yoo xam ne amuñu agrément. Mm-hmm. ñu ne ñu carrément mënuñu leen sanctionné. ñu ngi fi def suul bukki sulli bukki yéen xam ngeen ko. ñu ngi fi ah. paaj ñëpp xam nañ fu ñu ne ba suba. Mm. lépp lépp lépp fukk deux cent cinquante mille euh, deux cent quatre-vingt-dix mille fay trois millions ñu fii ñëpp xam fu ñu ne am na kenn mënu leen a sanctionné ah. donc buñ xaar ñoom dara mhm. nañu mobiliser wu ñu ànd xàttandoo dóorantoo jéem a lijjal ci problème yi vraiment maa ngi leen di lancer appel boobu di remercier encore euh, waa Walfadjri leen encourager encore ci liggéey bi ngeen di liggéey parce que lépp fi lay feeñee mhm. lépp fi lañ koy waxee macha allah te rek muy njëriñ askan bi ah,